def ci topp kon bu fekkente ni amul délai aussi ci xel mu rafet bon sens war nga jàpp ni kat ci bind ci bind waaw daf ci topp c'est que non non non confondons pas euh, ñaari phrase yu toppante ak délai yu nu sas nit ki euh, donc amul benn délai bu nu sas ci charte nationale entre moment de la prestation ak moment bi nga war a def sa déclaration amul amul délai prescrit par la loi c'est c'est laissé ouvert c'est un principe confirmé dans la constitution qu'un président de la République doit procéder à la déclaration donc vraiment euh, euh, euh, Pape nanu moytu dëkkal askanu Sénégal fu mu dëkkul yooyu c'est pas les priorités du peuple sénégalais les priorités du peuple sénégalais sont ailleurs. Mhm. yow nag bu fekkee ne Pape nga sa bopp loolu mooy sa priorité nga ni ma man mooy sama priorité. dama bëgg Macky Sall def loolu parce que man Pape Ngagne loolu moom laa ittee yow mais c'est pas la préoccupation. monsieur Salé vraiment xam nga xam nga c'est pourquoi je t'ai dit que maître Doudou Ndoye a raison. waaw maître li wax lu am la waaw. ma ni mu bu xaaroon tuuti du wax li mu wax. parce que mi ngi ci préoccupation président Macky Sall parce que lu mu xam la. waaw lu mu sasoo la parce que charte fondamentale bi moo ko ko sas. il va le faire dans des délais donc mais évitons de confondre vitesse et précipitation loi fondamentale sasul président Macky Sall des délais impartis pour faire poser cet acte sasu ko ko daf ko sax ni war na ko def. Mhm. mais la la constitution émet sur les délais et le moment de le faire donc. débat yu nga xamante ni amul njëriñ jaru ko nanu débat yi nga xamante ni ça permet mhm. d' avancer et d' avancer dans la bonne direction loolu moo ah, ëpp ah, solo d'accord donc ah. encore une fois je me résume mhm. Meddu Ndeye li mu wax ànd naa ci man ma sa charte bi daf nu sas loole incha allah rabbi Macky dina ko def mhm. mais nanu waxtaan li nga xamante ni moo ittiyoo askan bi mais des problèmes artificiels comme celui-là vraiment c'est pas une priorité pour le pays actuellement par exemple boo waxoon ci bi nu fi fekk li nga xamante ni pouvoir bi bi bi bi bi bi fi dàq euh, euh, ñaawteef yi mu fi def ah di di di pasar pasaree am am réew mi euh, deux jours avant le premier tour di signer ay ay ay concessions qui portent sur des sur des de des des centaines de milliards de de francs CFA de façon indue loolu li nga wax ni yooyu moo itiloo askanu Sénégal bi tey. d'accord pas war na signer lii wala war na def déclaration de patrimoine suba la ko war a def gën a suba kooku vraiment amul benn njëriñ comme waxtaan d'accord je suis désolé loolu mooy mooy sa yitte waaye man nag le respect de ma constitution wala le respect de la constitution aussi amal na ma njariñ parce que yaa ko wax léegi nga ne touche pas à constitution nekkoon na combat Macky Sall nekkoon na seen combat nekkoon na combat wu peuple bi alors donc bu fekkente ne gis nañ ci lu nuru jalgati constitution boobu ci article 37 faaw ñu teg ko ngeen andi ci ay leeral parce que loolu moom moo jiitu ñu mën a ñëw ci càcc geeg leneen ak leneen donc pour man ponk la boo xam ne dañ ko war a wax alors que du man maa ko yëkkati ki ko yëkkati xam nga ko xam naa ko nekk na ku ñu ràññee ci biir réew mi maître du Ndoye dafa def point de presse woo taskatu xibaar yi ne leen Macky Sall dafa jalgati charte réew mi parce que waxul am amam te alors que charte yi dañ ko ko laaj. dana ko def dana ko def waaw mais lii kay. ñu ngi tontu ñu ci mais maa ngi maa ngi kontaan bu baax. xam la déggee ni tey yow te yow nga respect charte réew mi. maa ngi ci kontaan loolu ci lu baax a laax. pourquoi parce que jamono ji ñu génn amoon na ay candidature qui était anticonstitutionnelle. y avait eu une candidature jamono yu ñu ci présidence yu ñu génn euh, mais maa ngi sant sama borom que tu es progressé au point aujourd'hui de te faire le défenseur de la constitution. maa ngi sant sama borom. c'est-à-dire yow di la féliciter ci progression bi sur cette position là non non monsieur Salé dama yaakaar da nga bëgg a jaxase nit ñi. jaxase wu ma la si nii jaxase ma mënul passé man ma toog fii. sama combat yëpp nekkoon. Hmm. man ma toog fii. sama combat yëpp nekkoon xeex jalgati constitution bi moo xam troisième mandat Abdoulaye Wade ma xeex ko loolu nekk suma combat nekk combat wu ñëpp alors nga bëgg ma ñëw tey bëgg ko revendiquer bëgg ma ci génne ah bon yàlla baax na bon ci bokk bon ñoo bokk combat bi bokkoo ak askanu Sénégal bi yàlla may nanu ci nam ni sant ko d'accord léegi wax nga léegi ak jalgati maanaam sàcc yu ñu fi fekk ñoo ñi yéen yéen a koy wax alors yan preuve ngeen ci teg parce que aussi wax nii rek pala palais bi lee lañ fa jël oto yi lii lañ def lii saax-saaxee googu mais loolu du yem ci wax da koy prouver pour nit ñi xam ko bu fekkente ne aussi bëgg ngeen mu leer je pense que noonu ngeen di def mais loolu rek la ñuy dégg ah dégg que ni jël nañu fii pale ba dara nekkatu fa lii ak lii ak lii lan ngeen ci mën a teg loo xam ne askan yi mën nañ ko gëm loolu jamono jii yéen parce que du xibaar yi yéenay wax askan bi ay xam naa ay information yu ngeen di fortaatu ça et là xamal askan bi ni y a telle ou situation bu ñu fekk présidence palais et cetera et cetera et cetera c'est vrai que ñun mu mënuñu wax askan bi lu te sukkandiku wuñ ko ci lu wóor euh, président Macky dafa niwoon askan bi bu bu toogee dafay def dafay xayma situation bi mu fekk donc dans les délais très courts euh, euh, incha allahu rabbi loolu dinañ ko tàmbali def état des lieux def audit du parc de l'État de la présence et de l'État en général xam la mu amoon parce que loolu lu yomb la parce que lépp lu nga xamante ni Euh, dugg na ci patrimoine u état bi dafa am fu mu jaar ba si euh, bu ñu ko génnee dafa am yoon aussi bu mu war a jaar pour génn nan ko jëndee wala fu ñu ko jëndee ak ci kan la nu jaaree yooyu yëpp c'est des informations qui sont disponibles yoo xamante ne bu ñu xaymaa situation bi en principe war ko mën a am muy parc bi muy yeneen des objets qui sont des objets qui appartiennent à l'État parce que tey jii tey bu yàlla defoon Pape Ngagne nekk président du Sénégal bu ko joxee dara. joxunu Pape Ngagne institut personnel Pape Ngagne li mu incarné lan ko jox donc nation bi lan ko jox par l'intermédiaire de son président donc mu nekk patrimoine public qui appartient à l'État sénégalais donc yooyu et dinañu seet traçabilité bi xam nu mu duggee nu mu génnee et euh, à partir de ce moment là li nga xamante ni moo war du point de vue euh, euh, des autorités gouvernementales incha allah war a parce nag li ma li ma bëgg ñu wax ci mooy loolu ñi fi jóge ni ñu saax saaxee ak ah, mu réew moo ëpp njëriñ ah. alors bu ëppee njëriñ pour ñu war ko waxtaane aussi duñ ko waxtaanee ñu wax nii dama bëgg ñu mën ci dut baaraam nga ni ma ma nga ni ma kat euh, Pape ñii nii la ñu def réew mi nii la ñu def pale bi nii la ñu def nit ñi nga bëgg loolu ñoom ñu xam ko mais ñu xam ko ah, patrimoine <laughs> patrimoine bi nga xamante ni tey euh, ma nga woon pale ni ko fa doon gis ñi dem pale am na ay yu ràññale woon comme objet d'art tableau d'art ay façon yu nga xamante ni euh, euh, euh, c'était des des éléments décoratifs du palais de la république ay objets yu yu am solo yu am yu am valeur yu incarné probablement lu bare newatu fa newatu fa maintenant nu mu fa nu nu fa jógee ak kan moo ko fa jëlee kooku pour le moment dañuy njort rek waaye à notre niveau de responsabilité dañoo war a am firnde avant ni ni jëf. xaaroo donc ni xaar mais yow xaaroo ni xaar ni am firnde. mais on constate dañuy constaté parce que am na lu ko fa jëlee. waaw ah. ko fa jëlee. Mm-hmm. te xam nga pale du comme sama kër am na am na am na organisation am na ñu koy gérer am na ay architecte yu yore palais et cetera et ñoom ah, ñu ngi ñu ngi ñu xayma la nekkoon ak la des. e quand on aura tous ces éléments factuels ben dinañu jël les mesures yu nga xamante ni ñoo correspondent ak les actes posés mm-hmm. maintenant au niveau du parc euh, effectivement on entend pas plus tard qu'aujourd'hui man am naa information bu ma jox tey am na ay ay ay ay ay ay entrepôt ay zones yu ñu localiser des véhicules qui appartiennent à l'État c'est la vérité bon jarul may wala béréb bee la. wala déw non fii du place am. du place mais euh, localisé nañ ko dans d'autres circonstances. Mhm. ak ñu nga xamante ni mooy seen mission dina ko def man c'est pas ma mission pour le moment donc euh, euh, du ma ci sore mais lu ñu établir la maintenant dans quelles circonstances la fa oto yooyu nekk ku ko fa yóbbu am na ñuy wax ni non dañ ko jënd. c'est peut-être vrai mais il faut établir l'acte d'achat l'acte de vente par conséquent ko jënd. ku ko ko la mu ko jëndee fu mu jógee y a des éléments d'information dont les autorités ont besoin pour prendre la décision donc ces éléments d'information sont en cours de constitution donc laissons le temps au temps am naa ne dir bu gàtt àla kulli alin askan bi dina édifié par rapport ak euh, question yooyu yëpp parce que aussi ça fait partie quand même de la de la bonne gouvernance nit da ngay gëm yàlla te maanu alalu askan bi ba ko fa mais nag comme ñenn ñi nee nu habitude seconde nature la loolu la ñu tàmm loolu la ñu seen bopp euh, randal rek randal rek randal randal nañu ba tey euh, le nouveau président installé. Mhm. mais il n'a rien trouvé dans les caisses de l'État. fekk fa dërëm monsieur Salé. Euh, on au mois d'avril on est au mois d'avril donc en principe on est à quatre environ quatre mois d'exécution budgétaire on est à quatre mois d'exécution des fonds spéciaux alloués au président de la République mais tey jii tey tey. c'est-à-dire lekk nañu euh, euh, huit mois ou sept mois de fonds spéciaux alors que les les huit mois sont devant nous. donc pour vous illustrer rek. Mhm, seen euh, comportement les actes de prévarication. ah yu nga xamante ni sunu gaañ ñoo ko def. d'accord mais du bert kenn ci ñoom. Mhm. parce que d'ailleurs looloo tax. askan bi jëlee leen fii. d'accord Euh, maa ngi ñaan askan bi jëlee leen fi jële bu ñu fi yemale jëlee leen pale rek. waaw nañ leen dàq ci organe yëpp de toutes les institutions y compris de la future assemblée nationale incha allah. d' accord voilà monsieur Sall boo wax ni ma l' habitude est une seconde nature ñoom noonu lañ leen xame mais loolu boo ko waxee mais da ngeen ciy taxal seen bopp yàgg nga ak Ablaye Wade ak partem Macky Sall naka noonu ndax loolu du tiital askan wi euh, ci ñi nga xam ne dañu wax ni Macky Wade bis la yow yaa wax de. yaa ma wax ni loolu la leen xamee alors que ñaata at la Macky Sall ànd ak Abdoulaye Wade dans l'opposition ànd ko ak moom au pouvoir bu dee 12 ans 8 ans yëpp ñu ànd ko yow nga taxaw ni loolu mooy seen jikko ndax loolu dina leen ci setal est-ce que dina dalal xelu askan wi wécc parce que Sénégal yi defuñu fii ay nit ñaayee fi nekk kenn doful bokk ci nguur ak yoon nguur du benn on est dans un régime de de nature politique précise on est dans un régime présidentiel où ndogal bi ci président de la République la personne dootu président de la République moo am prérogative par décret de de de de dire assemblée nationale nee na sama 100 milliards yi ci ndox laa koy dugal mu ñu no 100 milliards yi assemblée nationale wax ni ci ndox la koy dugal non non non du ma ko dugal sama bopp laa dugal kooku président de la République moo am boobu prérogative malgré le vote par l'Assemblée nationale donc malgré euh, euh, le, la position prise par les supposé être les représentants du peuple sénégalais donc président la président mooy dogal mooy bum Ah, donc un premier ministre ak martaba boo mënti am ak taxawaay boo mënti am amoo benn dogal lu dul les instructions et la volonté du président de la République on peut nous reprocher probablement ça d'avoir suivi euh, la volonté ou d'avoir suivi les instructions du président de la République mais ça c'est différent que d'avoir un rapport malveillant par rapport aux finances publiques c'est pas la même chose Macky Sall bu fekkoon ni am na tilim tilim bu néew bu ne ci moom parcours bi mu bi mu am du ko am parce que nguur bi wallaay jéem nañu fexe bu nekk pour taqal Macky Sall mais Macky Sall yàlla ka aaral boppam ku set la amul dara lu lu lu entaché. parcours am parcours am moom moo set mais ñi mu àndaloon pendant vingt ans presque sept si le peuple sénégalais doutait mhm. un seul instant de la nature propre de l'homme Macky du ko denk boppam. c'est ça la donc vraiment qu'on écarte Macky Sall. de ces choses bëgg a folli parce que loolu aussi Sall la ñu fal. wala Ablaye lañ bëggoon folli distinguons un homme bu incarner une ambition nouvelle. constituer une convergence et vers qui peuple entier s'est déporté 68 pour cent 68 pour cent parce que 67. virgule quatre-vingt nangam nangam pour cent la pour arrondir rek nan ni soixante-huit pour cent dans l'histoire politique du Sénégal c'est un fait inédit cinquante-sept pour cent la woon Wade en 2007 au second tour après sept ans de magistère cinquante-deux pour cent la woon en 2000 bu nu fàtte loolu mukk soixante-huit pour cent en faveur de l'homme qui aura fait irruption sur la scène politique de façon indépendante autonome en 2008 en 2008 donc euh, parti bu nga xamante ni euh, dafa juddu adulte dafa juddu askan bi askanoo ko. victoire boobu APR ah, ah, askanoo ko mais bu may ma may ma rek ma terminer. wax may ma ma ma terminer ma terminer non may ma ma terminer may ma ma terminer parce que la différence elle a été au premier tour pas au second c'est la, la différence a été faite au premier tour pas au second tour c'est-à-dire que bu ma bu ma bu ma bu ma bu ma bu ma booleeg samay doomu ndey donc euh, euh, je ne cherche pas à positionner l'Alliance pour la République contre d'autres je cherche à positionner l'Alliance parmi d'autres c'est un parti naissant qui a fait quatre ans 2008 la juddu on a euh, euh, euh, posé l'acte fondateur en décembre 2008 donc c'est vrai que historiquement Euh, euh, parti bu am quatre ans d'existence un peu moins euh, dirigé par un homme dont l'irruption sur sa bannière propre méngoog diir boobu ñetti at a génn walla ñetti at yàlla def li mu def kooku dafa kéemaane nag kooku nag il faut ni wax ko mais le peuple sénégalais n'a pas choisi un second de positionner quelqu'un face à Wade euh, euh, euh, l'a choisi donc c'est une donnée elle est incontournable mun c'est la réalité c'est la réalité on, on, on, on se félicite de ce que les autres candidats ont fait parce que y compris Macky Sall s'était engagé à être derrière le candidat qui ferait face à Wade et qui serait présent au second tour comme les autres candidats avaient fait avaient pris là donc ils, ils ont tenu parole Macky Sall aurait tenu parole s'il n'était pas dans la situation de faire face à Wade au second tour moo déterminé wu par rapport à cette situation là donc quand même il faut qu'on respecte d'accord parce que Mais, démocratie waaw dafa méngoo ak respecter respecter peuple le peuple voilà. souverain le peuple souverain moo tànn Macky Sall teg foofu est-ce que vraiment nañ ko rafetlu buñ ko minoré buñ ko wayefal parce que askanu Sénégal wayeful ko la preuve loolu leer na la preuve il y a eu plus de participation au, au second tour qu'au premier tour est-ce que leneen mayu ko ko est-ce que leneen it mayu ko ko parce que ñu bari dañ jàpp ni leneen may na ko ko lu mel nii bi ñu waxee ñoom ak seen ay nawle yépp pour toog fii combattre la candidature de Wade mu bàyyi leen fi dem campagne yi xam nga wax nga ma léegi ne ma kontaan nga ci la fait que ma rangé euh, ci ci xeex constitution